yu bëgg a jur jàngoro moom la l'observateur xëya ubbil yéenekaay bi ñi yàlla nato woppiro ñoo di insuffisance rénale ginnaaw ba ñu tëjee hôpital Aristide Le Dantec toj ko ngir tabaxaat ko fa ñu yóbbu hémodialysé di ci hangar pèlerin bu Yoff l'observateur nee nañu la fay dund mook jéggim siraata yam ne bari na soxla ñoom hémodialysé yi te yooyee amu fa la am ndox di ñàkk bari jafe-jafey branchement assainissement bu ONAS amu fa ay kitit li ñu koy daf mburu daju ko ci fuur ku tudd fuur xel dem ciw tàngoor li tàng dëgg Sud Quotidien nee nañu démb la ci assemblée nationale ba ñuy wooteel ministre intérieur budseem woot budse ba yéenekaay bi nee nañ koy defaat ndax mujjul am démb président assemblée nationale di Amadou Mame Diouf dafa suspendre ndajama ndax biccoog mbaaloo guréy gu fa amoon démb ci diggante député opposition bi ak député Benno Bokk Yaakaar yi li waral coow la Vox Populi Ndiaye jéggaluwul ci li mu wax vote budget du am ci assemblée nationale vote budget bu ministère intérieur démb ci assemblée nationale journal L'Info ngi ñuy wax ne ab séance la bu bari woon jalti-jalti lise ko dañu xamal ne pëcc xoo rëy di cacophonie moo amoon démb ci assemblée nationale wax ju fa député Ami Ndiaye ñi wax Serigne Moussa Fassi moo ko waral ba dañoo mujj suspendre vote ga ministre intérieur Antoine Félix Diome lise ko ne nañu dafay delluwaat ca ca kanamu député koy laaj ba laaj ci nervi yi ñu gis ci manifestation yi li ci Antoine Diome tontu moo di ministère intérieur du liggéeyloo ay nervi du liggéey ak i nervi li nit ñi di fàtte nag moo di ci biir police bi da ci am ay policiers yuy soltani am ci policiers yuy siwilo la Sénégal nañu mbir yi yombuloon dimb ci assemblée nationale mu di ci lu soxal fichier électoral bi di ci manifestation yi ñuy aay léeg-léeg ci réew mi ba ci wax ne bu ñu ko wootee exploitation hydrocarbure gi ñu séntu ci réew mi ak xeex gi ñuy xeex wàllu terrorisme l'observateur tax nañu but sa ministère intérieur boobee bu dee danañ ko wote tey lay doon ndax session démb ba yeggul ñu yegg ci xët mu njëkku la tribune kàdduy tontu ak kàdduy leeral yu bàyyeekoo ci directeur de l'emploi di Pape Modou jëm ci honorable député Pape Djibril Fall yéenekaay bi nañu député Pape Djibril Fall mi doon ñaawlu keroog ci assemblée nationale sa def ci fukki yi président Macky def ci bopp réewum Sénégal Pape Modou Fall nee na lu ëpp 544 milliards bi dugal na ko ci promotion emploi des jeunes ñu des ci waxi emploi di am xëy ak direct news mu ñu xëy xamal ne am xëy am na ca porum Dakaaru njiital port autonome de Dakar di Mountaga ak li mu fas mu di recruter ca port ñaari junniy jeunes yu fay liggéey yéenekaay bi nee nañu opération ba tàmbali na recrutement gi ci ak transparence liggéey le mandat bi ne ci xëtamu njëkk ne poorum Dakar ma ngay joxe liggéey liggéeyal Linguère ay infrastructure sportive yu mucc waa Grand Place nee nañu loolee mooy bëgg-bëggu Cheikh Niang président ODCAV bu Linguère pelouse synthétique ay stade ak ay projecteur nee na moom la Linguère soxla journal bi nañu ba ñuy amal final départemental dëkk ba fa la ko waxee di final bopp maître Amadou Ka bu Sirne bi ñu ko pare ne woon moom sàkku na ci ndaw yi a Ousseynou Diouf ci match bi Sénégal war a football suba ak waa Équateur ma nga leen fay wax moom Diouf fa mu jàpp ne fa la ñu jaar ngir dóor Équateur soleil national nañu gayndey waaj nañu ba jekk ngir seen ñetteelu match bu suba bi seen digg ak trois heures ci ngoon ca lay doon stade yéen a kaay ni Sénégal waajale boobile record yéen a